pourquoi un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances doit avoir accès à un fonds commun alors que l'enseignant qui tripe ne l'a pas mm -hmm. Moi, patriote, j'aurais dit je n'en veux pas. Mais toute la question est là. On ne peut pas profiter d'un système pendant 15 ans et revenir dire je reste dans le système, mais moi je suis patriote. Vous trouvez un paradoxe entre ce qu'il dit et ce qu'il fait il n'y a aucune cohérence, c'est dans la politique que nous sommes. C'est du rêve qu'ils vendent. Ils savent que c'est du rêve qu'ils vendent. Il n'y a aucune cohérence dans sa démarche économique. Ça n'existe pas. On dit ce monsieur, oui, il est performant monsieur quand vous êtes ngi noonu Assane euh, ab débat la bu mu doon amal ca 7TV euh, ginnaaw ba nag def na euh, porté na plainte moom tamit ci daal journaliste bi ñu naan Adama gay jàpp ni moom itam def koo tooñ xam naa nag loolu yi fekk ay fan daal bu dee plainte boobu dugal na ko waras na cee xam lu leer li koy wax nag mooy da doon ŋàññoom Ousmane Sonko te tey ji fal nañ ko. waaw am na solo sëñ bu di rafetlu taxawaayu Adama mi Adama Gaye mii gis nga réew mi moom ku fiy def dara bañ ñu wane ko li ngay def yaba nga xoolaat ko bu baax a baax a baax. Mhm. moom kay yoonam nekku si li mu doon wax Ousmane Sonko wala boog li mu doon wax parti bu Pastef comme que waa parti bu Pastef ñoom xooluñu ku leen saaga xooluñu ku leen xas xooluñu ko ànd ak ñoom xooluñu ko ànd ak ñoom mais dañoo xool ni lii mën na ko ñu dénk ko ko mais lan lay bañee ku ko fàttali. Mhm. moom dafa yaakaar ni li mu daan wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko xamu ko. xam na ko xam na ko te teewut mu fal ko. kon nag bu wëlbati ko waatee mel ne. li aadama Gaye génne day bañ ñoom Sonko gis ko ba mu naan dama koy pelante kon moom li mu nekk leerut. leerut leerut na nekk si lu leer naa ñu daa war na génn ni ko waaw li ma daan wax usmaan sunkoo de samay wax la. te lu ma gisoon te ci kaw laa ko waxee woon. si kaw laa ko waxoon nëbbatu ma si samay wax la te ëmm lu ma si daw. Hmm. bu fekkee daa di diplôme mu ne ko am naa ay diplôme wala jurut sax ma am naa wala ëmm. non bokkul de. ah. <laughs> Assane <laughs> <laughs> yaram yee tàng saay saay teel ngaa yàkkamti de oui ba ndànk rek ak guñ fële ci diplôme yi mm, kon ñaar la <laughs> waaw moo di indiwaatal poste bi nga ne lan <laughs> jaajëf Adama Gaye <laughs> waaw maanaam poste baa ngi nii nee na Adama Gaye dafay laajte ndax moom euh, ki ñu fal dafa dafa liggéey Ousmane Sonko daal ndax ak li mu ko yàq lépp mm-hmm. waaw waaw lii Adama Gaye def son yu waaw pelante da amul ay question la laaj ba pare indi ay preuve teg si penc mi ñëpp di ko gis waaw indi Adama Gaye mii indi ab vidéo war a tàccu ni ko deel xool li nga xam ne loolu ñaan yóbbu waar mm. nii gars yi def di yóbbu nit ñi waar nañ leen di yóbbu waar moom mais nag kii nga xamante ni moom lañ fal del tuut ginnaaw ca la mu waxoon moom dafa waxoon ci penc mi teg mm-hmm. léegi nag ñii nga xam ne ñoom lañ fal ñoom nee nañu xooluñu ko ànd ak ñun xooluñu ko ànd ak ñun dañuy xool lu ne ka ko mën a ñu dénk ko ko jàpp nañ ne mën na lii dénk nañ ko ko kay ñoom loolu du problème loolu kay aw tagg la sax si moom mm-hmm. aw tagg la ñi ko fal man pour man aw tagg si ñi ko fal moom si boppam war naa mën a xam ne ñii kat xooluñu ku leen wax lu ñaaw ak ku leen wax lu ñaaw mais mënal métier mi rek ñu jox la ko kon loolu daal lu si am lu si jar pelante nekku si bis bu ko pelantee rek ñu xam ne waa ji daal du nitu du nitu waloor wala du nitu kii wala wala wala wala daal wala amul lu mu wax waaw bis bu ko pelantee nañ ko wàccee ci post bi te xam ne lépp lu ñu ko waxal dëgg la bis bu bàyyee mu sedd nag mu jàpp boppam liggéey liggéeyam nañ xam ne kii kat ku mat a fal la ku mat a dénk poste la hmm. hmm. joxe hélas kon lii ñu génne warta tax ñu wàcce ko. Mm-hmm. liñ si wàccee ñii xam nañ ko de ñii si penc mi lañ nekkoon de Ousmane. kon gars yi daal borom xam-xam lañ soxla. waaw kenn gënu ko informé ñëpp xam na ko. ok mais Assane lu tax nga jékki-jékki rek génn dem ca diplôme ya. yàkkamti rek. <laughs> ndànk rek ak guñ ca diplôme ya alaaji